asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi leen di ziara bu baax a baax euh, tey may wax ci turu la maison du Coran vidéo bu gàtt rek bu ndaw rek waaw euh, di leen woo ci suñu studio bi nga xamante ni boobu léegi ñu ngi si di nabi nabi <coughs> waaw studio son la war a doon boo xamante ne dañ mën a permettre ñu mën di enregistrer. jàngkat yi nga xamante ne ñu ngi fii Sénégal di am ay kaamil yu mat sëkk si enregistrement bu set te jaaduwul ndax jaaduwul jaaduwul fi mu ne nii benn sénégalais di génn réew mi di dem enregistré kaamil alquran jaaduwul tamit benn sénégalais fi mu ne nii du dugg si benn studio boo xamante ne musique lañ fay liggéeyee di fay ngir ñu defaral ko alquran ngir ñu enregistré ko kon nag yéen a yéen ñi nga xam ne yéenay safoo alquran yéen a war a mën a ñëw ngeen jàpp. waaw ah, boobu léegi nag euh, kon daal jaadu na ñu ànd taxawal studio boo xamante ne cent pour cent alquran lay doon ni ko ñeneen réew ñi di amee di def yitte ba macha allah ñun tey war nañu mën a am yitte boobu defar ko waaw ah, te lu ñu amagus néew nag ñu siy tàmbale boobu ba léegi dama leen koy wax si suñu ay moyenu bopp lañuy demee ak ay jàppale yi nga xamante ne ñoom ñëpp ay ndongo daara lañ ñoom ñëpp ay ndongo daal lañ ñu ay bëgg alquran lu ñu mënoon lu ñu mën a yëkkati def ko si la maison du Coran bëgguñu sax kenn ku tudd seen tur la def nañ parce que bañ ko defee ba pare fàtt nañ lii def nañ ko parce que jàppul ah, affaire bi du question ndimbal affaire da ñëw def la euh, ngir ëllëg waaw donc euh, lii moom lii moom su ma sañoon début début euh, su ma jumul apartement bi ñu ngi ko am début année bële année bii ñu bii bi ñu bi ñu nekkoon début année bii nag suñu objectif mooy studio bi na mat carrément ni mu war a mate dem soob na suñu borom. gii suñu suñu mbokk bu baax nekk ba Canada moo ñu ko moo ñu ko yónnee waaw ku nekk rek def li nga mën yii yëpp macha allah <laughs> donc <clears throat> presque matériel yi nga xam ne war nañu am war nañ ko am pour mën a def enregistrement yu set enregistrement mu sax bu baax lenn rek moo des mooy studio bi mu ñu defar ko d'une façon boo xamante ne dina is bruit yeeg yooyu noonu yëpp maanaam dina doon euh, studio pour enregistrement carrément clim bi fu war a dem yooyu yëpp macha allah yàlla def na matal nañ ko tout ça donc ñu ànd si rek jàppandoo si ànd liggéeyal alquran te ñaan yàlla nangu suñuy coono yàlla bu mu niil suñuy coono yàlla bu mu doon loo xamante ne dañ koy perte ëllëg yowmal qiyaama yàlla yàlla nangul ñu. te lépp àdduna yàlla bu mu tax ñu gis suñu bopp wala ñu yëg suñu bopp wala ñu changer doxalin yàlla yàlla rek tax ñu def di def incha allah.